faaw ma santaat la beneen cant boo xam ne ci sama xol laa ko tibbee yow ak njaboot gi yëpp ak waa Tiwaawan yëpp ndax dama ñëwoon jógaat di wutaat réew mi te ba élection bi jàlle ba léegi ñëwaat tëgguma woon Tiwaawan waaye gise naa ak yow ñaari yoon ci Ndakaaru kon dama lay santaat bu baax ci jàppale boobu ngeen ma jàppale mu nekk jàppale bu fés jàppale bu rafet jàppale boo xam ne it résultat ba wone na ko kon jërëjëf sëriñ bi Alaaji Mansour wax na ko ba may jàppale du tey te booba la gënoon a metti fuuf dem naa fi ba ñu tàmm lu ne ñu wax ma ko dama attaquer serigne si ma wax li ma wax la ah yalla nga def juróom-ñetti at bima ma nekk ci bop rew mi ak léegi ne awma ak ben serigne xar ma wala ay jafe-jafe waye waye bobu yak nañu xel yi yak nañu xel yi te yow ya taxaw kérok fi ci tawon défendre ma te bobu duma président la république kon nak ki lay défendre xana ba nga yorogul mën xanaa du tey lalay bañ a défendre kon maa ngi lay santaat bu baax sëriñ bi di la gërëm di la xamal it ni sumb yi ngay sumb ci liggéey bi la sunu borom dënk muy xalif Seydi Hadji Malick Sy xalif général de Tidiane dinañ la si jàppale si sunu kem kattan en tant que état ak lépp loo xam ne it teewoon yelloo na ko ci wàllu liggéey euh, liggéey bi nag luñ si mën daañu ko def bu fekk nag état ay mbiram tam du gaaw lool ndax diggante bañ lay wax soxla ak ba ngay bind soxla boobu ci programme yi wuti alal ji ba ñu wote ko ak mettre en œuvre léeg-léeg dana def tuuti diir waaye daal nga xam ne lii ñu fi tàmbali woon dañ koy continuer ngir moderniser waat yokkaat taaru dëkk yi dëkku diine yi certes mais aussi dëkk yi ci Sénégal yëpp ndax suñu ambition mooy Sénégal yëpp jëm kanam maa ngi yemale kàddu gi foofu di la féddale suñu kóllëre di la joxaat kilifteefu jur bi nga nekk si ñun e, di la waxaat rek tey la gën a taxaw sa wet ngir jàppale la si liggéey boobule di sant sëñ Pape Malick ak ay rakkam ak seeni njaboot di wax yal nañu yàlla may ñu teewaat waxtu wi déwén ñun ñëpp eh, Sénégal jëm kaw jëm kanam